salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax dafa am ku ñuy wax oustaz Cheikh Ahmed Tidiane Ndao nekk koo xam ne ci daawa la yëngatu maanaam waaraate ci yoonu yàlla ak jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk koo xam ne boroom xam-xam la yàgg def émission yu am solo ci rajo Dunia. bu ci gëna fess di kalimatul haqq kalimatul haqq nak moy kaddu deug waye mom mi nga xamne tay day waaraate di wax li yalla ak te bi wax li diglé ak lu mu tere bokk na ci ñi nga xamne ñi ni ngi jalgati yoon di def ay bakar yu maga maga maga mag te defe naa ne képp koo xam ne dangay ngay digle sangu da nga waree sangu ba pare yow yàgg na nag di attaqué Ousmane Sonko ndax intérêt bu mu amoon ci Mariam Faye ak Macky Sall comme ay moromam yu bari ñuy tubb ci xaalisu réew mi di leen ko jox muy l'argent du contribuable sénégalais léegi nag bi mu demee ba xam ne mbir mi jeex na dafa gën a rakkaat na nag daan attaqué Ousmane Sonko mais ay attaques yu oyof la ko daan attaqué nag. mais eh, dafa mel ni depuis bi Pastef accédé au pouvoir ñoom ñëpp dañoo gën a rakkaaju ba bu ñuy wax sax duñu contrôler lu ñuy wax ndax seen xol moo leen di tooñ ndax frustration bu ñu am ndax jàppoon nañ ne Macky Sall éliminé na Ousmane Sonko bu yàgg yàgg yàgg ndax kat Macky Sall jàppoon na Ousmane Sonko tëj tas parti ba jàpp euh, cadre parti bi ñu bëri ñu tëj leen ci kaso bi xam naa ne boobu ñoom ñu mel ni oustaz Cheikh Amadou Tidiane Ndao kontaanoon nañ.

ku wëyu koo xam ne tey Sénégal bu amoon conseil supérieur islamique tey dootul waaraate ci tey dootul waaraate ba àdduna di tukki ndax dafa jiiñ Ousmane Sonko lu bon muy góor jigéen tuumaal ko te bi mu koy tuumaal daf doon indi ay firnde indi na ay firnde nee na ci Adji Sarr ba pare tudd ku gën a nekk doomi xaj moroomu doomu xaraamam di baajaxate bokkoon ci ñoom ñi nga xam ne dañ leen doon fay ngir ñiy saaga Ousmane Sonko di yàq deram wax ji nag bi ma ko déggee dama ko déglu ak amertume ak xol bu naqari mel ni dañ ma dóor balu fetal dama amoon metit métit bu jéggi dayoo bett na ma trop ndax xam naa ne ku contre Ousmane Sonko la mais xam nga am na ñu contre Ousmane Sonko Sénégal mais dinañ koy critiquer mu xaw a oyof même buñ koy sosal sax sosi du nekk sos yu jéggi dayoo mais kii moom waaraatekat la koo xam ne day waare di oo nit ñi ci yoonu yàlla fi sabilillah ba pare mu xam li nekk ci tuumaal gor ak li nekk ci tooñ moom mu koy def waaye lu ko xiir ci lii jaaxal na ma ma bëggoon nag ñu àndandoor ngeen déglu ko ba mu jeex ngir yàlla déglu leen kàddoom yu ñaaw yu salte yi mu teg ci daru Ousmane Sonko kàddu yu bon yu ñaaw yu salte yu jógee ko ci koo xam ne nee nañu waaraate kat la nitu diine la loolu lay mbuboo ñu déglu ko ñëwaat. ñu ngi gis loo xamante ni daal dalul xel ci ay nitu seytaane yu nga xam ne ñu nga jóge ca tugal nga xam ne mag ñi tugal daarul fasiqin leen ko tudde maanaam réewu kàccoor yi mooy tugal lu bon lu ne fa leen koy nase rawatina France rawatina Paris mu mel ni am na fan yi ñaari kilifa yoo xam ne jóge nañu tugal ba ci ñetti kilifa tabaarakallaahu ñëw fii ci réew mi ñoom ñetti kilifa yooyu yëpp ay góor jigéen lañu ana lan moo ñu war a booleeg kilifa yooyu ba ñuy am ak ñoom yenn relation yi lu jaral laaj la ndax itam ñii nga xam ne ñoom lañu dénk réew mi tuuma bii daf leen mas topp rawatina euh, Ousmane Sonko Ousmane Sonko depuis digganteem ak Adji Sarr lii ñuy tuddee ak nguur jigéen dañ koo teg ci deram ndax aji saar ci boppam moo wax ne sonko doon na sëy ak moom ci ginnaaw tuumaal ko ci wax ne lu mu bëgg la ndax moom la daan def ak moom kon bu fekkee tuuma boobu dal na sonk mu di kilifa war na mën a moytu nag ndax ku ñuy jiiñ bëti guddi doo soccoo yeelu gone kon bu fekkee ne tuuma bi tegu na ci kawam ma déggaat ku ñuy wax baa jaxate ndef waxtaan ne lii may wax bu dul dëgg na ma Sonko porte plainte tuumal ko ci ne doon na séq ku ñuy wax njaga sekk ba gaañ ko ba mu dem hôpital di faju lan la ñu sëy boo xam ne sëyu góor ak góor la loolu nekk lu ñaaw loo xam ne dëppi ba jaxatee wax ko gisuma soxna gisuma ko def benn réaction ci loolu pour wane ne taxal nañu deram pour jéem ko ràgg ñaareel ba wala ñetteel ba mooy biñ ko falee meeru Ziguinchor gis nañu kam fa njëkk recevoir jóge France góor jigéen la ñu delluwaat gis Sonko ci boppam mu yor benn parasol boo xam ne mu ngi ko téye nii loolu lépp mu ngi ci réseaux sociaux yi ku ko gëstu dana ko gis di doxantu couleur bi couleuru drapeau góor jigéen ñi la loolu lépp di ay tuuma yoo xam ne da koy saxal toujours te duma gis mu weddi ko ñu fal leen jox leen réew mi que ñu njëkk a fal que ñu njëkk a invité ca palais ba dib góor jigéen ñu coow ko fii coow lu rëy ba Mame Makhtar Gueye génn na ci wax ci waxtaan wu yaatu ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant mbër ki démb université kii ñuy wax Jean-Luc Mélenchon ñëw fi ñu recevoir ko ci daara ji gën a mag nga xam ne mooy symbole bi gën a rëy ci réew mi ñu fay tàggatale ñu fay tàggate ñi war a yor réew mi ëllëg te ñi yor réew mi yëpp jaar fa université boobu fa leen yóbbu saay-saay bi mu taxaw wax ne ci kanamu étudiants yi ci kanamu suñuy ndaw di suñu yaakaar ne ma njëkk a xeex ak ngóor jigéen ci France ba ñu nangu ko fa góor di sëy ak moroomu góoram góor di sëy ak moroomu góoram nee na loolu moo ko njëkk a xeex France ba ñu légaliser ko kon dafa mel nit mission boobu moo ko indi senegal te mënu ko fee doxal nag la tànk jàppalewuñu ko te arab dafay wax ne annaasu ala diini mulukihim peuple boo gis la seeni njiit gëm mu di seen diine moom lañuy gëm te dafa mel ni Sonko dafa ñu bëgg a gëmloo ak ngóor jigéen ne aayul looloo waral booba ba léegi ngeen gis kilifa yii di ñëw ci seenu kay di leen seet si ba mu nekkee maire biñ leen joxee réew mi ak bërki démb kii ñëw di Jean-Luc wax waxam bu rëy bii ne moom moo njëkk a xeex pour ñu légaliser ak ngóor jigéen ca France ba góor ak góor di fa sëy mu mel ni Abdou Karim Xurum Xaas wax na ne bi ñuy criminaliser góor jigéen fii ci Sénégal mbooloo ànd sàmm jikko yi di ko xeex demoon nañ ci Sonko pour mu signer mais dafa bañ nanguwut a signer nee na loolu jaaxal na ko te sax mbooloo sàmm jikko yi nga xam ne Ababacar Mboup moo ko jiite am nañu waxoon ne mbooloo moomu lobby la boo xamante ni dafay publicitéel góor jigéen ñi même Cheikh Omar Diagne wax nañu ne itam nit la koo xam ne dafay publicitéel góor jigéen ñi loolu lépp di ay tuuma yu taxaw ba ci kastiloor yi nga xamante ni Sonko daan na wax pour ñu koy tëgg di manifester waxoon nañ ko ne ko loolu baaxul ci réew mi ndax góor jigéen ñi ba ñu dee xeex seeni droit ca tugal ca Europe moom lañ doon def di tëgg ay kastiloor kon nag boo ko defee roy nga leen ñoom góor jigéen ñi ba tey rek dafay mel ni empreinte góor jigéen dafa génnul ci parti bi ñuy tuddee Pastef dafa mel ni dafa am lu ñu d'accord lu ñu wëllërante pour doxal ko loolu lépp nag di musibab senegaal ndaw ñi ngeen yeewu bàyyi seen bopp xel xam ne ëllëgu senegaal mu ngi nekk ci danger bu fekkee ne dem nanu ba légaliser fii ak ngóor jigéen Sonko itam bi muy tontu gis nañ ne tontu yooyof la tontu ndax dafa mel ni dafa bëgg maslaa ak góor jigéen. kàddu yi bi ma ko déggee fi ma toog dafa mel ni. dañ ma dóor yet ndax mënatuma woon dara ndax mbetteel gi ma am ci koo xam ne nee nañ day waaraate bàyyi nañ yu bëri mu sedd nag man début bi sax bu nit ñi commencé di ko attaqué bi mu nekkee premier ministre dama ne non nañ leen bàyyi rek ñu attaqué ba sonn quoi suñu sonnee dinañ bàyyi waaye kii nag moom dafa dépasser les bornes il est passé à la vitesse supérieure ndax lu toll ni góor jigéen nga tuumaal ko nit nit koo xam ne bokk na ci ñi jiite réew ndax contre gi nga ko contre ak bañ gi nga ko bañ ndax Mariam Faye bi mu fi nekkee daan na la jox xaalis Macky Sall tamit daan na la jox ngay def lu ñuy tuddee istaraw bi ayatillaahi sama nan xalilal di soppi aayu yàlla yi di ko jëndee njëg bu ndaw ñu jël l'argent di contribuable sénégalais di la ko jox di la ko dundalee ngay ñuulal sa bopp foogoon naa ne nag nit koo xam ne day woote woo diine dem bay waar nit ñi di wax yàlla li mu digle ak li mu tere li yonent digle ak li mu tere dina wax waaye du wax wax ju ñaaw ji di ko jëmale ci nit ndax daf ko tuumaal tuumaal yoo xam ne tuumaal yu tuuma yu bon la te lii kenn waru ko bàyyi mu sedd mii ndax ñii bu ñu leen bàyyee wallaahi du baax kii war nañ ko yóbbu ci yoon teg ko ci yoon mu indi ay leeral ci tuuma yi nga xam ne yëkkati na ko teg ko ci deru Ousmane Sonko te ñaaw na salte na bon na jàpp na ne Ousmane Sonko lay xas waaye boppam la gën a tuutal ndax lii bu ñu ko déggee woon ci làmmiñu keneen wallaahi du garaaw waaye dañ kaa déggee ci làmmiñu koo xam ne exemple la dafa waroon na gis nit di def lu bon di wax lu bon mu oo ko yedd ko waar ko ci yàlla ndax maa farat naa fi kitaab min shay'in yàlla fàttewul dara ci alxuraan te moom jàng na ko mokkal na ko yàlla wax ne wallazina yarmuna almuxsanaat suma lam yatu bi arbaati shuhadaa fajriduhum samaanina jaldatan ولا تقبلوا لهم شهادتهم ابدا واولئك هم الفاسقون موم لولو موكال نكو خام نكو خام لي مي فري با بري موم موكاي ديف غور ديكو ساغا ديكو خاس ديكو جين غور جيجن ناخ ان بو ام سي موم ناخ بان جين كو بان نياونا سالتنا بوننا تبتنا موم lii Lillahi wa rasuuli damay ñaan Ousmane Sonko premier ministre du Sénégal président du parti PASTEF mu porter plainte au niveau du procureur de la République parce que ce fait qu'il ay critique la nii rek wax dëgg yalla grawul man na sétane lépp nit ñi di critiquer tek ko ci ay critique objectif mais dem ba jël Ousmane Sonko diko tout tout mal jigéen

am na intérêt yum daan am ci Mariam Faye ak Macky Sall mënatu tuka am ñooñu joggé nañ fi wayé nak cette fois ci lii dafa ëpp te dafa jéggi dayo njëkkoon na génn ci jamono yële laataa Pastef di jël nguur gi don tuumaal Ousmane Sonko ci wax ju mu waxon naan xalé yi nenañ ku déssé ya yaa juraat te dee du ci amat moy wax jooju ñu jëloon daggate ko monte ko pour diaboliser Ousmane Sonko mom mu koy deggal mom té Yalla wax ko ci alcorane ko in jaakum fasikhun bi naba in fatabayyanu man manon nako ko sax toloore garaawul amul problème mais dem ba dépasser nak borne yi à la vitesse supérieure di tout Ousmane Sonko Songo, jigéen di indi ay firnde di tudd ay nit ah lolo nak kenn waru ko mën nak, seetaan wax offense au chef de l'État mo am offense au premier ministre amul mais dañuy ñaan. le premier ministre Ousmane Sonko ak kabineem bi ñëpp nañ jóg seen droit la ñu porter plainte ñu teg leen ci yoon nañu porter plainte ñu teg oustaz Cheikh Ahmed Ndaw saay-saay bii doomi xaram bii di mbuboowoo diine te doomi xaj la ñu teg ko ci yoon saay-saay la bandi la vëyu la nit ku bon la nit ku xaram la tooñkat la seytaane la kii ku ñu war a teg ci yoon la ay provocation nag la ñuy def pour bëgg gars yi dal ci seen kaw ñu politiser mbir mi enn la ñuy waxee mbañeel bu nekk ci ñoom moo tax mënatuñoo am sago bu ñuy wax sax duñ ko tey waaye nag Ousmane Sonko mën naa muñ lu nekk nag ba mu des mu nekk kilifa ci dëkk bi ñu toog di ko saaga su fekkoon jamono yu fi Macky Sall nekkee woon la nga xam ne lépp lu ñu mës a teg ci deram bu porté plainte sax du mujj fenn parce que justice boobu Macky Sall moo ko téye woon ba plainte Ousmane Sonko kenn du ko diligente ak luñ ko man ti def menacé nañ ko fi de mort saaga nañ ko fi mal ko def ko lu nek mu porter plainte jul fenn waye comme nguur gi soppeeku na te kenn waxu len ne yéen yéenay teg seen loxo ci justice bi di manipuler justice xanaa nak am nga droit nga porter plainte au niveau du procureur de la république parce que la tout mal, te def la togn te dafa am ay mbolo yu top sa ginnaw am ci yow yaakaar sa discours moo tax ñu fal le président Bassirou Diomaye fay ba yow nga nekk premier ministre lii duñ ko seetaan de maa ngi oo waa Pastef yëpp képp ku sopp président Ousmane Sonko na nga jóg taxaw su porté wul plainte lii dañ ko fajal suñu bopp.